أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokkum taalibe Imam Dramé ñu ngi nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew tey ñu ñëwaat ak yéen ci seen rubrique xew-xewu jamono comme niñ koy faral di defee rek di wax ci ay point yu am solo point yoo xam ne damay wax ni wax ci moo gën ñàkk cee wax parce que réew mi ñun ñi ñuy tuddee ay doomi daara wala di ñu tuddee ay nitu diine bu ñu bu ñu ragalloo bu ñu ragalloo ba ba waxuñu bu réew mi tàkkee ñun dañ ci am responsabilité te réew mi tey kilifa yu baree bari li tax ñu ragal média mooy bu ñu waxee am na ñoo xam ni yàkkamti nañ kilifa wax bañ saaga ko waaye mbokk yi ay saaga warul dàq koo xam ni dañu ni yonent bi moo wax ni bu doon am na ñu koy donn ci kaw suuf yow da nga ci bokk kooku ay saaga wara ñu koy xoqatal warul tere mu wax parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni al ulamaau warasatul ambiyaau boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi kon képp ku yëg ni da nga bokk ji ñi donn yonent bi mbokk yi ñu lay ŋàññi wala ñu lay xas warul tere sa réew bu tollee ci yenn circonstances yi nga wax waaw boo gisee ku mel ni Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh nit ñi duñ ko fàtte ay jamonoom nit ñi daan nañ ko wax lu nekk di ko attaqué di ko ŋaññi mais téewul da daan wax sëriñ Abdou laxaat Mbacké lu ne daj na ko nit ñi daan nañ ko ŋaññi di ko attaqué ca jamono yooyu waaye teewul daan na wax ba tey ji histoire di bindaat ay waxam dafa am lu xew ci réew mi mooy seetlu nañ ni fan yi gis nañ maanaam sunu mbokk police yi police nationale nga xam ne bu ñu nee police nationale rek mooy police boo xam ne réew mi la fi nekkal police mu nekk ab institution boo xam ni état bi moo ko fi teg pour mu pour mu yor sunu sécurité teyit nag ñu nekk ñoo xam ne dañ leen a war a dañ leen war di njukkal parce que bari na ku toog sa kër toog ak sa njaboot nekk ci jàmm police moo tax bari na ku mën a nelaw ba yendoo ba yandaar ci sa biir néeg boo ko mënee police moo tax te mbokk yi ñun ñi di wax ñun duñ jete kenn ay fleur parce que man am naa chance dund ci yeneen réew yu dul Sénégal gis façon comportement yi nga xam ni réew yooyu police yooyu am nañ ko man dama bokk ci ñi gëm ni police su Sénégal bokk na ci police yi gën a professionnel ci àdduna bi te loolu war naa mën a def comparaison bi parce que dund naa Sénégal dund naa ci yeneen réew ci biir police nag mën naa am ay benn benn nit yoo xam ni mën nañ caa nekk di def naka su noonu ni mu amee ci métier yépp tey métier moo dem ci Sénégal rek di nga ci gis ay benn benn nit yoo xam ni le métier ma laaj defuñu ko waaye firiwul ni maanaam police bi ci boppam ñoo bon déedéet parce que boo gisee ñuy wax lii dafa am benn audio bu ñuy dégg boo xam ne ragal naa ni ñépp a ci war a wax ñu ni dafa am benn policier boo xam ni dafa nekk ci Touba jàpp ay nit di jëflanteeg ñoom naka noonu biñ ko laajee mu ni man de bu doon xalifa bi sax nii laa koy def loolu mbokk yi kenn mënu koo rafetlu te li ci gën a ñaaw mooy dafa adressé wu ni ab tijaan la moom police bi police bi di ko xamal ni kooku dafa jox ci police bokkul ci police ñaareel ba mooy ñu xam ni kooku du tijaan parce que mbokk yi bu ñu naxante waxoon naa ko dama koy waxaat rek mbokk yi Sénégal képp ku fi nekkub tiijaan Alaaji Abdou Aziz Dabakh moo la gën a nekkub tijaan te Alaaji Abdou baax moomu korog ba muy dem Touba li mu waxoon ñëpp dégg nañ ko kaset yaa ngi fi kenn mënu ko effacer dani sama sama ñëw bi ma ñëw Touba de yàlla kontaan na ci yonent bi kontaan na ci Seydil Hadji Malick kontaan na ci Cheikh Ahmadou Bamba kontaan na ci te kooku damaa gëm ni bu dee alaaji Abdu du tijaan ab tijaan amul ci réew mi man loolu laa gëm man sëriñ Abdou Lahad Mbàkke képp kuy nekk murit moo la jàngal nan la nit lan mooy murit sëriñ Abdou Lahad moo ñu ko jàngal ñun génération bi te li may wax ni murit yi mën nañ koo seede sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moo waxoon ni am murit ak ab tijaan daal wala ab xaadar mu ni ñett ñi daal dafa mel ni ñett ñu bokk ndey ak bàyyi kenn ki ñuul kenn ki kenn ki weex kenn ki xeereer loolu am njàngale la moo xam ni ñu ngi ko jëlee ci làmbiñu sëriñ abdulaat te sëriñ abdulaat wax naa la ni la ñi roy ak murit di royu taalibe ci moom lañ koy royee kon mbokk yi ñun Sénégal bu ñu nangu am na piège boo xam ni ñun ñooñ tasawuf wala ñun ñooñ diine waruñoo nangu ñu daaneel ñu ci loolu ay piège la yoo xam ne noonu lislaam yi ñoo koy piéger lislaam Sénégal amul ku ñuy tuddee ab tijaan ak ku ñuy tuddee ab murit wala ku ñuy tuddee ab laayeen wala ku ñuy tuddee ab ibaadu Sénégal xamal lan moo fi ne ku ñuy tuddee ab jullit gannaaw boo nekkee jullit nag ba nopp am nga droit nga jàpp tarixa bu la neex te loolu mbokk yi suñ mag ñi suñ seen dund yëpp ci loolu lañ ko dépensé wane ni. ñàkk bokk tariixa warul tere ñu jëflante ci jàmm loolu yàgg naa di ko wax waaye wax rek pour fàttali boo demee ci masaalikul jinaan nga xam ni bokk na ci téere yi nga xam ni ñii ñii delluwaat ci wàllu tasawuf ñu ci bari dañ koy jàng Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu nga xam ni moo ko waxal boppam kenn waxalu ko ko moo ko bindal boppam parce que Serigne Touba léppam daf koo bind bàyyi fi sëriñ tubaa biñ ko laajee ni ko yow cheikhul xadim yow yaay kan dani abdan lillahi wa xadiman li rasulihi man jaamub yàlla laa waaye nekk koo xam ni damay ba ma bëgg a nekk serviteuru sayidna muhammad kon sëriñ tubaa wax nañu ni kon sëriñ tubaa li ma bëgg a wax mooy yonent bi rek la joxoñ nit ñi joxoñul kenn boppam mais yonent bi la joxoñ nit ñi man ngaa jaaree nag ci Serigne Touba pour àgg ci yonent bi Serigne tubaa bi ñu ko laajee lan mooy sa mission dani lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarraa wa inni ahmadu nee na man benn mission rek laa am mooy dama ñëw pour beesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba moom moo ñu wax ci masaalikul jinaan ni fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillahi walan yaxida sawaa'un intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani sëriñ tubaa nee na werd woo mën a jàpp moo xam werd jaylaani la wala werd cheikh na ahmed tijaani ñoom ñëpp benn objectif lañ am mu yóbbu la ci xadara yàlla bi te loolu sëriñ bi buñ delloo ci mbindum seex seydil xaaji maalik dañuy fekk mook sëriñ tubaa li mu bind mu nekk kiif kiif seydi xaaji maalik wax na ni fa turuqu kulluha ila rahmaani musilatun muslikatun yaa jaani nee na tarixa yëpp benn objectif la am mooy lóbbu yóbbu la ci yàlla fa turuqu kullaha ila rahmaani kon mbokk yi Sénégal ñu ngi ñaan encore une fois ñi nga xam ni dañuy bëgg a jël mag ñi def leen fond de commerce pour dundul ci ñoom nañu may réew mi jàmm te xam ne réew mi ku ñu tuddee ab tijaan ak ku ñu tuddee ab murit amu fi réew mi ku ñu tuddee ab jullit moo fi am te Sénégal li ma gëm mooy benn mbir rek moo fi des bu sensible boo xam ne bu ci boroom xam-xam yi taxawul wax ci mën naa tël taal réew mi muy mbiru confrérie yi Sénégal bu dee mbiru politique xam nañ niñ koy regle parce que sénégalais lu wax ji bari bari bu tànn jotee xam na kam yi wooteel sénégalais lu wax ji bari bari bu élection jotee ñu départager nit ñi ki ñuy fal ñu fal ko nit ñi xëy liggéey kon leen rek moo fi des ci lu sensible loo xam ni borom xam-xam yi war nañoo am courage affronter ko xamal nit ñi ni Sénégal ab jullit moo fi am waaye amul lu ñuy tuddee murit ak lu ñuy tuddee tijaan ak lu ñuy tuddee ibaadu ak lu ñuy tuddee layen wala xaadar nit na jéem a fexe nekk jullit d'abord loolu mooy li am solo bépp koo xam ni dafa wax ni ab tijaan la di wax si naka su dul noonu ci ab murit bàyyi leen xel ni kooku noonu Alaaji Malik la parce que mbokk yi. alaaji Abdou Aziz baax taxaw na fii Sénégal yëpp di ko dégg mu nettali xissa boo xam ni ñun ñëpp war nañ cee jànge mu ni mu ni Seydil Hadji Malick nee na sama mbokk ma nekk ca Touba di ci Ahmadou bàmba képp ku wax ci moom safaan yow yaa boole sa bopp ci alaaji Malick waaye Maodo dëñ na ci yow kon kooku ñuy tuddee ni ab policier la li ma gëm mooy bokkul ci police def ci joox mu def nag point bu am solo bu ñu profité bëgg a diaboliser police encore une fois parce que police ñoom ñoo yor sunu kaaraange police Macky sàll tegu leen fi Aly Ngouille Ndiaye tegu leen fi police bi fi nekkoon ci jamono Abdoulaye Wade moo fi nekk ba tey te mbokk yi man li ma gëm laay wax man ku ma xam-xam ni kenn moomu te kenn serxalu ma lem damay wax rek ngir sauver réew mi waaye nag man bokkuma ci ñi nga xam ni buñ nee xuuf ñu daw man ay xuuf dàquma li ma gëm dinaa ko wax parce que man dama bokk ci sénégalais yi nga xam ni dama bëgg a nekk trait d'union parce que tarixa bu ne mën naa cee wax te réew mi nag wax jot na il faut ñu wax ak nit ñi xamal leen bi képp ko xam da ngay mbubboo Serigne pour dal ci kaw ay jullit yaa boole sa bopp sëriñ tubaa waaye Serigne Touba boolewula ci moom képp kuy mbubboo Alaaji Malick pour dal ci kaw murit yaa boole sa bopp ci Alaaji Malick mais Alaaji Malick ci moom di wax fi may daanelee mooy police su Sénégal bokk na ci police yi gën a yi yi ma gëm ni ñoo gën a nekk ay professionnel ci àdduna bi man la le trois juin dama ko dund ak ak sénégalais yi yëpp maa nga la le trois juin police bu ñu amoon bu dul police bii kon bakkan yi tuur dina bari waxuñu ni nag police du def ay erreur ci biir police am na ñu bokk ci police di def ay erreur mais loolu warul tax ñu diaboliser ci police ci boppam. dañuy jàpp nit ki ko def xam ne nit ki ko def moom lañu war a xam mooy kan ñu identifier ko teg ko ay sanction waaw mbokk yi police man dóoruma parce que génn génnuma ci mbedd mi police fekkul kenn ci mbedd ci biir kër di la dóor waaye dañoo ni couvre feu ñun ñu nekk ci ab république kon képp kuy républicain li war a am mooy da war a respecté couvre feu bi Sénégal nag buñ bu ñu diaboliser police ba nit ñi faaleetuñu police ku génn ci mbedd bi dinañ nangu li nga yor man nekk moom di défendre police de su ma gisee ci police loo xam ne jaaduwul damay taxaw dénoncé ko waaye nag li ma mën a wax man sama bàmmeel rek ci laa toog seetuma ku kontaan wala ku mer li may wax Sénégal moo tax may wax police su Sénégal bokk nañ ci police yi gën a nekk ay professionnel ci àdduna bi drogue bi ñuy wax ci Sénégal mais drogue heure bu fi duggee ñu jàpp ñu jàpp ñu ko yor loolu li muy wane mooy police bi def liggéeyam kon nañu bàyyi police bañ ko diaboliser encore une fois ñi nga xam ne nag dañoo dugg ci police te bokkuñu ci ñu génne leen loolu lañ amoon ci lu ñuy wax di wax ni kilifa diine yi yéen ñi donn mag ñi ay saaga wala xoqatal warul tere ngeen wax parce que réew mi am na fi génération boo xam ne seen papa yi saaga rek lañ leen jàngal ñooñu nag waruñu ñoo xopp ba ñu wax dëgg parce que réew mi tey bu tàkkee ñun ñëpp a ci am responsabilité feebar bi ñuy wax mbas mi delluwul ginnaaw mbokk yi feebar bi delluwul ginnaaw amul tànk ginnaaw tànk kanam la am la am donte kenn bëgg ko kon nañu respecté li nga xam ne état bi daf ko teg bu dee opposition gis nañ opposant bi gën a radical ci contexte ci ci ci jamono ji mooy Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ko day taxaw mayul dara ma Macky Sall di dal ci kawam bu dégg ba cëg te li muy def ñu bari ànd ci ndax loolu mooy réew réew dafa war a am opposant am pouvoir te Ousmane Sonko moom. dafa dem wuy ji Macky Sall li tax mu wuy ji ko mooy intérêt Sénégal kon tey képp ku bëgg réew mi te ni ab patriote nga da ngaa war a ànd ci loi yi nga xam ni état bi ñu ngi koy teg boo ci àndul nag la force restera à la loi mbokk yi yéen a wax ni la loi est mais c'est la loi yéen tubaab yéen a ko wax kon ñi jiite réew mi nañu jël seen ay responsabilité képp koo xam da nga bapuyee état dañ laa war a teg ci bërëb parce que nag kenn nit waruñu ko bàyyi rek mu yor feebar boo muy def li ko neex ba wàll nit ñi kon loolu la ñuy wax di wax ni lépp lu ci dëng ngeen xam ni ci di doomu aadama la lu ci jub ngeen xam ni ku bëgg réewam ku bañ réewam dem ci guuta rek moo tax muy wax in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Thank you.